82 waaw ñoom kii Pastef ñoo am 40 40 45 46 députés. waaw waaw. soo xoolee Yewwi mhm. il faut. pour nga am yenn loi yi pour mu jàll day xaw a métti ci moom. Mhm. pour le moment mais on est obligé de faire avec. Mhm. jusqu'au mois de septembre. parce que loi bi dafa wax ne. le le pouvoir le président de la République. peut dissoudre l'Assemblée nationale. quand cette assemblée-là aura. deux ans deux ans. deux ans de durée de dix ans. de deux ans. donc te moo ngi am assemblée mm-hmm. moo mm-hmm. mm-hmm. après li ngay gis mooy. xam nga su ma nee ci man kii foofu noonu ci ci euh, le rôle des ministres. ak ministre yi ñu dem. il faut vraiment sculpter ñan nañu fal. c'est très très important et en plus man mën naa la wax euh, pour man. y a des points forts mais y a des c' est vrai que poids fort yi dañoo ëpp lool. mais c' est une œuvre humaine. Hmm. loo gis doomu aadama di ko defar am na lu am na lu baax am na lu bon. Hmm. lu ma yaakaar ci juste jàngat la. Hmm. mais soo seetloo. le dispatching des rôles. le dispatching même des ministres des ministères. xam nga ñu bëri dañuy wax naan. c' est un super ministère qu' on a donné à cette femme là ministère waaw. Khady Diène Khady Diène Faye. soo xoolee. xam nga dafa am lu ñu ko dindi ci moom. parce que bu njëkk. du temps de Wade la commencé woon. Mm-hmm. ba du temps de euh, euh, Macky. Mm-hmm. c' est le ministère de la jeunesse. Mm-hmm. qui gérait certaines structures d' emploi. ñoom ils ont décidé de faire autrement. c' est pas la c' est plus la le ministère de la jeunesse. mooy gérer ay structures comme xam nga yi amoon ay Ablaye Wade Ablaye Wade dafa créé woon ay ANPEJ ANEJ euh, OFEJBAN yooyu noonu. c' est ministère de la jeunesse qui gérait ça. léegi nag ministère de l' emploi mooy gérer loolu. mais soo le fekk que ñu boole leen c'est une bonne chose parce que suñu xool seetloo ba pare. soo seetloo euh, les audiences man dama comme dañuy suivre ci ci ci ci réseaux sociaux yi. dem mm-hmm. naan suivre souvent ces audiences muy Aliou Sow. Mm-hmm. mais Aliou Sow il gérait plus c'est y a dafa amoon collusion entre moom et le ministère de la jeunesse. Mm-hmm. il y avait une grande collusion. parce que y' a beaucoup de choses yoo xam ne Aliou Sow moo koy gérer parfois tu te dis est ce que c' était c' est pas le rôle de des ministres du ministère de léegi nag quand tu apportes la culture parce que la plupart du temps la culture c' est pas tout simplement la la jeunesse. Mm-hmm. mais soo seetloo Aliou Sow. Mm-hmm. il recevait beaucoup plus les rappeurs les artistes et tout ça là. Mm-hmm. mais un ministère un même si c'est un super il peut gérer tout ça le ministre des vraiment à cette ce dysfonctionnement là. Mhm. mooy lan le ministère de la communication. comment ça on a changé l' appellation. Mhm. et c' est normal ñu changer appellation gis naa lu tax ñu mooy ministre de la communica euh, ministre des télécommunications et de l' économie numérique. Mhm. pour man gis nga seen adduna bi fi mu toll nii. ce qui va changer ce qui va permettre à l'État mmh. d'absorber le taux de chômage, d'absorber le nombre de chômeurs au Sénégal, mmh. c'est l'économie numérique. mais malheureusement Sénégal bu ñu nee économie numérique. Mm-hmm. bu Moussa Bocar Thiam dafa yaakaar ne économie soo ko nee ministre la communication et de mooy lan. Mm-hmm. licence bu Walfadjri waxee dara nga dagg ko. Mm-hmm. bu Sen TV waxee nga dagg ko loolu moom gën a ci économie bi économie numérique. moom rek mënoon na régler le problème du chômage au Sénégal. su ñu amee vision bu claire. mën na régler le problème di li mu mën a absorber. l'agriculture mën ko régler absorber.

certaines question mhm. qui relèvent vraiment, bon, je m'excuse du terme, sérieusement, mhm. c'est quand même des balivernes, quoi. Ah sérieusement, oui, oui, oui. D'accord. Parce que, bon, en fait, lan mooy parité. Mhm. lan mooy parité. ah c'est c'est c'est essayer de mettre les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité du point de vue de la compétence. mais yow su fekkente ne jël nañ ñeenti jigéen. mais est-ce est-ce que est-ce c'est c'est quatre femmes-là qui ont le profil de l'emploi. mais c'est une question de profil. Uh-huh. c'est une question de profil. gis nga je pense que c'est un faux problème que de parler de de, de moi je pense qu'il faut parler de de c'est-à-dire de l'être humain de manière générale. Uh-huh. parce que aussi en insistant trop sur la fémini de ces uh-huh. c'est comme si jigéen gi day marginaliser boppam. c'est comme aussi quand l'homme dit c'est nous c'est nous c'est-à-dire l'homme le tigre ne crie pas sa tigritude. gis li nga doon. xam-xam. amul góor amul jigéen. donc du coup comme amul góor amul jigéen waruñu ko moomale góor wala moomale ko jigéen. comme moom di doon xam-xam bi mi ngi ci yow ñu jël la. Hmm. on a demandé aux gens de postuler. mais qu'est-ce qui dit que quatre femmes là qui sont venues postuler est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des personnes qui ne sont pas preneurs qui ne sont pas demandeurs. donc c'est un faux débat. non c'est un faux débat. il faut pas s'attarder sur ces faux débats là. d'accord Lamine. moi c'est ce que je dis en fait. alors la posture des femmes actuellement ñu ne naan ils ne sont pas elles sont pas d'accord avec ce que le PM a fait est-ce jàpp nga ne mën indi ay jafe-jafe ci ëllëgu politique moom ba moom Ousmane Sonko. bon warul poser défi défi défi wala jafe-jafe. Mhm. ci seen continuité politique. Mhm. mais il faut se rappeler que c'était une promesse. Mhm. Et les promesses on doit on doit on doit les tenir. absolument et si quand il quand il s'agit d'une parce que xam nga lan li tax moom li tax nga war ko tenir parce que day ubbil mm-hmm. euh, des canevas day ubbil ay ay ay boulevard mm-hmm. à tes détracteurs mm-hmm. et là c'est en, toute légitimité que euh, les femmes euh, réclament parce que pour certains ministères man mënuñu parte moom bon mënul am Euh, en termes d'égalité de de nombre. Mhm. comme bu ñu jëlee vingt cinq minutes divisé par deux. Mhm. ne euh, moitié bi femme moitié bi góor. Mhm. bon je vois pas ça la pertinence. mais quand même cinq cinq euh, quatre quatre de femmes. je vois très très petit. 11 pour cent. voilà 11 pour parce que parce que bon. c'est vrai que il ah. faut il faut raisonner en termes de compétence. bon la la femme qu'il faut ou l'homme qu'il faut la place qu'il faut. le Sénégal ne manque pas de mmh. femmes mm. pour ñu occuper yenn poste de responsabilité au sein de la de la gouvernementale parce que bon yenn ministères yi comme ministère de formation professionnelle mm-hmm. yooyu femmes yi mën nañ ci mën nañ ci intervenir mën mm-hmm. nañ ci yeneen ministère yi aussi bo mën na leen jox benn quota mm-hmm. euh, bu dix ministre ministre ministre au euh, minimum loolu pour lan pour ñu aussi honorer une promesse électorale parce que comme ñoom ñoo waxoon rupture waaw ngor see wax ja. <laughs> ngor see wax ja waaw parce que nga leen di. xam nga pour man ah la parité dans pour man déjà il faut savoir xam nga ministère ministre yi li ñuy bëri yëpp. Mm-hmm. on a vingt cinq ministres ministères ah. mm-hmm. mais xam nga ministère dañu am ay dañu am ay hiérarchie. absolument am na ministère boo xamante ni déjà dans la hiérarchie. Mm-hmm. des ministères. est-ce que xam nga ne su ma juumul ah saa sa sa su su président de la république jàllee. Mm-hmm. en tant président de la république le premier ministre xam nga ban ministère moo ci topp en terme de hiérarchie. Mm-hmm. le ministère des affaires étrangères. normalement. Et le ministère des Affaires étrangères, c'est géré par une femme. Mmh. Et une femme très très compétente. C'est pas seulement affaires étrangères. Yacine Fall, Yacine Fall. Mm-hmm. Non, mais nous sommes. Euh, intégration africaine. Non, l'intégration. Non, c'est les deux. Oui, l'intégration africaine. Mm-hmm. Mais c'est une femme très excellente femme. Mm-hmm. Très très. Euh, parfois, il y a des. y a des y a des profils yoo xamante ni ci gouvernement bi. Mm. mais tu cries hein quand tu les vois y a des profils yoo xam ne des profils extraordinaires. Nations Unies et man je sais je me pose la question à savoir. Mm. je sais que ne Ousmane Sonko il ne pa connaît connaît pas personnellement. c'est parce que il a vu leur mmh. leur compétence et mmh. ils ont été choisis mm. parce que dañu am un bon CV mmh. mais c'est des gens qui ont montré leurs preuves Yacine Fall bi est-ce moo dugal sa se secrétaire renseignement moo dugal Aminata Aminata. Euh, Touré Aminata Touré. Mimi non dans la diplomatie. Mhm, Mimi Touré. Mimi Touré. Mhm. Yacine Fall elle est très à l'aise quand elle parle l'anglais. absolument en a à a Madior ak mhm. Aïssata Tall Sall. ñoo xamuñu woon dara ci xamuñu dara ci diplomatie. c'est pas le cas de Yacine Fall ni mu miinee Afrique noonu la miinee le monde les Nations Unies. donc c'est un bon profil c'est une femme. mais c'est une excellente femme. Il mmh. n'y a mieux qu'elle sur ce. Mmh. Et mari était un, ministre aussi chevronné. koo xamante ni c'est un commis de l'État. mooy Jacques Habib Sy. et c'est kooku boo ko joxee profil boobu tu peux pas trouver mieux je trouve que tu peux pas trouver mieux. et gis nga il faut vraiment que les gens. prennent le temps. de relire les profils dans ce gouvernement. dafa am ñaar ñu ñaar ñaar ñoo xamante ni. ñaar ñoo xamante ni il faut que nit ñi xoolaat leen. Mhm. mais c'est des profils yoo xam ne excellent. Mhm. kenn ki mooy euh, Majojo Diagne. Mhm. mais li gàtt yi bi ma xoolee un reportage fait. bu mu def. je que Sénégal moo ko xamal Dakaractu. mais li gars da koy xool nga xam ne kii li muy wax autosuffisance alimentaire. mais ku ko ku ko ku ko ku ko ku ko bàyyi mu dem. mu yóbbu mu yóbbu fa Sénégal. xam na ko de. et le gars de euh, le le le le le maire de Sandiara. Mm-hmm. ah Serigne Gueye. Serigne Gueye mm-hmm. mais le gars il est il a un un CV de ouf mm-hmm. non seulement un CV de ouf mais c'est quelqu'un boo xamante ni Sandiara ñi fa dem li ñi fa xamoon ak ñi fa dem. dañuy xam ne le gars et le gars parce que man lenn rek laay mën xam nga Ousmane Sonko. il faut que ñu bàyyi ko mu liggéey. ñu toog xaar xam nga tax. lenn mën nañu ko critiquer. s'il avait choisi ses amis. pour être des ministres. mais sincèrement xam nga wolof Njaay fa am lu mu wax. Mm-hmm. nee na fas. Mm-hmm. doo ko dénk sa xarit. koy jox waayam da nga koy dénk xaritam. Mm-hmm. boo bëggee. boo bëggee mu raw. boo bëggee mu raw alors Mor Mbacke bëgg naa relance ci première question bi ñu doore woon. Mm-hmm. parce que am na solo gis xam ne assemblée ko bëgg a yóbbu bokk na ci yokk doole premier ministre c'est prérogative. Mm-hmm. bokk na ci également supprimer lii di conseil économique ak lii di haut euh, conseil des collectivités territoriales est-ce que jàpp nga ni euh, du ay risques ci assemblée boo xam ne amoo fa euh, amoo ben écoute euh, je pense que euh, yóbbu ko foofu mooy li yoon wax mhm. parce que c'est par cette voie-là que euh, ces institutions-là ont été créées mhm. mais quant à craindre mhm. pourquoi craindre parce qu'en fait moi je me dis quoi on voulait un changement le changement s'est opéré si tant est que les députés ces députés qui sont là-bas disent que c'est des députés du peuple te ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ni tey jii ils ont été ils ont été battus à plate couture par le régime de par par par par l'opposition mm-hmm. ba tey ñoom ñu nekk fii les dans leur programme mm-hmm. il figurait ces mêmes griefs là mm-hmm. supprimer ces institutions budgétivores là dans ce cas je vois pas je vois aucun problème. non mais amul problème. mais bu demee assemblée tey benn moo fa ëpp doole bu ñu voté non. aussi ça va à l'échec quand même. c'est ce que j'ai dit. aujourd'hui su dee benn moo fa ils ont tous salué. Mm-hmm. et ils aspirent tous au changement. Mm-hmm. ba ci Amadou Ba mii bi ñu wax candidat de la continuité. Mm-hmm. am na ci parti parti euh, ci ci benn ñu waxoon ne. continuité bi ça ne veut pas dire que forcément continuité bi Macky Sall doon def la. absolument il y a quand même. des innovations à faire. et ils d'accord sur certains points. même Amadou Ba mii. il était d'accord sur le fait de. réduire le train de vie de l'État. Mhm. donc du coup moi je c'est une demande en fait c'est une demande. Mhm. donc ñoom si tant qu'on a des députés du peuple moom tax ma ne la est-ce que c'est des députés du peuple. ak mhm. ak qui on va soumettre ces ces dossiers-là si c'est des députés du peuple. wala c'est des députés toujours du parti. problème bi foofu la nekk. alors yokk doole premier ministre. donc yokk doole premier ministre je suis d'accord. je suis d'accord parce que par exemple aussi le premier ministre doit pas être vraiment un bouton. voilà parce que nit aussi du la teg fi nga nekk une marion une marionnette. donc ça a été un peu auparavant. oui oui c'est-à-dire c'est-à-dire il est là pour exécuter la politique. du président de la République. Le président de la République aujourd'hui a beaucoup de choses à faire que de gérer ses affaires ministre bi. la on le met c'est parce que il a des choses à faire. il doit avoir la poigne qu'il faut. Mhm. Boun laa Dionne bi ñu doon waxtaanee fan fan la ci ginnaaw. quand mm-hmm. le mm-hmm. mm-hmm. ko jox yenn yenn yenn yenn yenn kii yenn euh, marge yi. am solo pour mu mën a liggéey. li nga wax ni dafa am solo. c'est laa bëgg a tënk. li président bi wax nga moom nga moom ngay jàllale daanaka daanaka entonnoir nga rek buy jàllale l'entonnoir nga rek. mais c'est pas la dëgg la mais a am solo day di en terme en terme de négociation. quand vous de vous. di bokkul ak nga nga nga nga nga négociation ak Ba Amadou Ba.